Talena nag c'est rubrique culture tey nag noir wax musée des civilisations noires le poste d'arsenal nekkoon ki ko njëkk amal festival mondial des arts nègres bu njëkk tañu ko ci 1966 fii ci Sénégal waaye tamit ginnaaw juroom ñaari at biñu tambali woon liggéey bi ci nguuru président Abdoulaye Wade ruban bu musée des civilisations noires président Macky Sall dal dina ko dagg tey niki alxames ba 10 heures jotee melokaanam ñu koy yu ron ya musée des civilisations noires bi ngi grand théâtre bu Dakar. hectares toll ci 14000 mètres carrés mën na dalal lu toll ci 18000 pièces dooree ko ci ay vestiges yu hominidés yu njëkk yi te ñu feeñoon fii ci Afrique lu toll ci ay millions yi at ak it création artistique yu jamono yi bu ñu sukkandikoo ci directeur am di Hamadi Bokoum bi lépp musée sax ki di réewum Chine moo ko daal di financé lu toll ci fanweeri million ci ay euro ba tey bu ñu sukkandikoo ci moom Hamadi bokkum mu ngi xam la népp bi lépp musée musée panafricain la ba nga xam ne lépp luy nekk ci Afrique doole tamit di wax ni que ni dina dalal œuvre yi nga xamante ni dina jugee si yeneen i dëkk ci biir continent bi bi lépp inauguration sax mu ngi am ginnaaw ab rapport bu nga xamante ni jébbal nañ ko kii di président français Emmanuel Macron ñaar fukki fan ak ñett ci weeru novembre nga xam ne ñaari universitaires yi ñu ko jiite woon muy française bi di Bénédicte Savoy ak sénégalais bi Felwine Sarr ci bi lépp rapport sax ñoom liñ siy ñaax mooy que ñu delloo dëkku Afrique yi seen yi nga xam la woon ba fan ginnaaw bi rapport ci patrimoine africain ministre de la culture de Koulibaly, daal dina xamle itam ginnaaw bi muy xamle taskatu xibaar yi musée des civilisations noires ni ñaar fan ak juróom-ñeent ci novembre ne Sénégal rek soxla na France jébbal ko ay œuvre nga xamante ni ko que Sénégal itam ni que ni bu la œuvre mi le toll ci fukki junni ñu ngi xaar ñu ñu amal ko lu tolloo ko juróom fukki at ginnaaw bi ko président poète bi di Léopold Sédar Senghor xalaatoon musée des civilisations noires dina doon bis niki tey benn seetu bu nga xamante ne ni ndaw yi mën nañ fa jàngee jaar-jaar ak cosaanu kàngamu dëkk bi ku ci mel ne Cheikh Omar Foutiyou Tall Maam El Hadji Malick Sy Cheikh Bamba la joor ak yi nga xamante ni ñoo nekk fépp ci Afrique ñu jàll seen actualité culturelle le studio Pathé nag fësal na bande annonce bu njëkk si moo ko joué film bi di yaawoo sax dinañ ko projeté ci weeru janvier bi ñu dëkkmal te nga xam ne moom Omar Sy moo si joué rôle Seydou Tall nekk acteur bu siiw bu français te cosaanam nekk Sénégal beneen xibaar ñeel na salon national du livre moom ubbi woon na ay buntam niki alxamis bi ñu génn fële ci Saint-Louis ca place Faidherbe bu ci teewaayu ministre de la culture Abdou Latif Coulibaly ak naataangoom Mansour Faye nekk maire bu Saint-Louis moo doonoon benn xew-xew bu ni dafay firndeel rek décentralisation bu amal ci wàllum aada ak cosaan bu ñu sukkandikoo ci moom Abdou Latif Coulibaly si noonu sax mooy xamle ni que ni jot li di salon du livre dina am ci benn dëkk ginnaaw ab tànn bu ñuy amal te at bu jot itam dinañ amal festival international du livre de Dakar nga xam ne dina dajale éditeur yu jugee fépp ci bitim réew ñu jàll seen agenda culturel Dakar Farmers Market nekk na benn marché fermier ak artisanal dina am samedi bi fële ca monument de la Renaissance ben exposition animation slam projection prestation artistique ak défilé bu ñu duppee Orange Night dina am moom itam niki ajuma fële ca musée de la femme Henriette Bathily sa place du souvenir bu 20 heures jotee mbokk yi li nag la ñu leen andi leen seen rubrique culturelle bu alxamis di leen jox dig daje beneen alxamis laata loolu di leen ñaanal kanal ak jàmm